maaleykum mbokku internetu Actubuzz ah, di leen nuyu di ñi xamante ni ñuy suivre fu ne ci àdduna bi di wax tamit tout le temps rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un parce que ci li nga xamante ne mooy fee yi nekkoon fan yee passé ci ay jamono yi ñu doon waxtaanee mooy xale bu jigéen bi nga xamante ne moo nekkoon sage-femme bi bi ñàkkoon bakkanam ci ci anam bu méttee méttee méttee métti ci li nga xamante ne ci diggante moom ak ak jëkkëram ah ñu gën a xam jëkkëram nag ci tey nag ñu ngi toog ak tamit ki nga xamante ne mooy nijaayam bi ngeen bële paas tamit toogoon nañ ak nijaayam ñu waxtaan si lu am solo ci côté li nga xamante ne mooy problème bi ni mu demee ak li nga xamante ne mooy lañ fa fekk ak la fa am yàlla def na rek ñu jot li nga xamante seen koor ba jël xale bu jigéen da koy jébbal suñu borom yàlla na ko yàlla xare àjjana nag ah te woyofal suuf ci comme doom ji mu bàyyi fii si àdduna yàlla na ko yàlla teg loxo yàlla yokk bu baax a baax mu nekk ay fan yu gudd dund téeméeri at yàlla yàlla suñu borom def ci barke yonent bi sallallahu bi ñu nekk ah leen nuyu waaw maa ngi leen di fay di leen sant euh, di leen sargal aussi quoi euh, di leen masaw coono parce que boobu ba tey yéen a ci quoi ah yéen a ngi daw di ñëw di information mais nii la quoi information boobu da nga ñëw à la source saf ko di nga am lu la leer quoi mais dégg nii di wax rek dalay dalay sonal quoi di nga wax loo xam ne après di nga ñëw rectifier ko mais heureusement que yéen depuis commencement ba tey wax dëgg yàlla yéen a ngi ñëw waaye ma teg leen ci wax nu mu demee parce que man maa demoon ci lieu bi fekk fa fay dem ba police woo police ànd ak ñoom ñu xool yëpp def seen yëpp waaw ba fu ñu demee ba na autopsie ba yóbbu ba bàyyi koor bi xam nga fa lañ yemoon waaw léegi nag buñ demee ba mardi bi ci lañ def autopsie bi bon après le après le jeudi non le xaw ma jeudi ci lañ ma waat pour man ñu entendre ma waaw police entendre ma ci la may doog entendre quoi bu mu entendre bu ñu waxee ba pare ma expliqué parce que maa ñoom ma doon ànd ci lieu bi di dox yëpp yëpp yëpp donc dama répété waat fay ba nu mu ñëwee ba si ñoom ba jël leen ñoom ñëpp ak lu ñu wax foofu yooyu yëpp tout ça ma répété waat ki fay moom laa leen loolu mën nañu ma entendre sama benn doom nag indi leen naa leen ko pour que ñoom ñu xam ne sama doom boobu moom lañ njëkk woo mm. parce que kooku kenn woo ko woon man maa ne police dégg kon xaar mu indaale leen ko sauf que di ngeen gën a am mais kooku bañ ko woowee tam dafa ñëw toog wax leen moom lañ njëkk woo tegal leen détails yi mm. point par point ba jénnee leen numéro bu ko doon woo daf ko scanné woon numéro bi ak heure bi 23 heures 57 defe naa lañ ko njëkk woo caabi te soo xoolee euh, meurtre bi mm-hmm. ci kii dañ na 22 heures mm-hmm. 22 heures la gaañu waaw parce que buñ demee fële euh, nu mu parce que ci corps bi papier bi ñu teg ci ko dënn bi mhm. muy fii ma denc dañ ne 22 heures la gaañu comprendre nga bon autopsie bi jour boobu jénn na parce que dañ ma ko waroon jox sax mais police comme que pare wuloon enquête il faut ma bàyyi leen ñu bañ ma jox résultat yi bon léegi buñ la mardi boobu mhm. dama leen ko bàyyi man maa yóbbu sax ñoom jël nañ sama maa ko yóbbu jox leen tamit mhm. mais buñ ma waroon jox dañ ko dañ pare guñu enquête te c'est vrai ko quoi man ma ko jël pour wax damay wax kon léegi après ma bàyyi leen document bi bon jeudi mercredi jeudi mercredi laa indi xaw ma laa indi sama doom bi ñu entendre ko bokkul ak magu ndaw si moom mun entendre nañ ko parce que ñoom kooku moom ñoo àndoon ci lieu bi ak sama frère yi mais kii sama doom moom demuloon mais moom la njëkk woo caabi moo tax mu yóbbu ko pour gars yi gën a xam ni mu demee parce que man je suis un ancien militaire mais xam naa aussi yokk gars yi seen motivation pour ñu gën a xam bu mu ñëwee tam bu ñu ko laajee daf leen expliqué yëpp ba jënd numéro bi jox na ñu woo waajooju jox ci lañ ko woo daar daar ne ko 15 heures mu ñëw caabi après man ñun xaaruñu fa loolu ñun dañoo ñibbi bon buñ ko woowee ba ñëw xaw ma mais waajooju man man avant bu xale bi xale bi après jox ma portable man après moom laa doon jokkoon bañ naa ko ba waajooju ñëw bu ñu yéegee ci kaw sax moom laa àndaloon ci kaw mais waa moom jëkkër ji moom jéen dem demul ci suuf la toog ak ay xaritam te buñ demee ba ci kaw aussi waa jooju balaa maa dugg def man dem ko fekk mu toog toogaay boo xam ne après man maa ko tëral hmm. daa di xëcc ni kii benn rido bu traversé benn fii bu sew mu dagg mu muuree ko ko caa bi bon la waa jooju bon xaw ma bon loolu la ma jotoon wax te ba mu wàccaatee itam di laaj waa ji di ko laaj naan ko yow Euh, kii da nga doon xeex ak moom déedéet da nga ko lu ko rey daay lan moo ko rey bu mu xoolee copain lu yàgg doog naan ma fa pànn boppam waa ji ba ma ko ne déngal ma wax dafa ma la doy na waar de mm-hmm. caabi mais après ma kon ne man parce que yëpp maa ngi capté waaw mm-hmm. ah, bon parce que sécurité militaire laa nekkoon mm-hmm. loolu dañ doon dem enquête yëpp donc am na lu ma ci xam loo xam ne au moins jàng naa ko si tuuti donc moo tax ma noppi rek toog te ba ma demee loolu yëpp révélé naa ko police te ci néeg bi aussi yére nekk gis ma foon yére xanaa néeg bu waa ji nekk dina am sax yére moom bi fa nekk wala ndaw si ndaw si deful yaram neen wàcc liggéey wàcc fu muy liggéey ne xaar ma seetu ko pour ñibbi xanaa du yaram neen lay doxee ci mbedd mais heureusement police gis naa benn euh, journal bu ñu woon ne yére ndaw sax gis ñu ko donc police xam na donc xam na ne yére ndaw sax nekk foon quoi bon léegi yooyu yëpp bon bu ñu demee daal en tout cas autopsie bi génn na te autopsie lu leer la wax dañ ko xoj dañ ko étranglé ba pare après di similé jël affaire maanaam xoos ko mën na jël njàmpee xoos wala dañu ko similé donc loolu moom leer na mu ngi fi semence mu fi mu tey waaw journaux yi sax ñu ngi ñu ngi bind sax xam nañ nu mu demee lu ñu def foofu loolu la loolu autopsie bi wax man maa ngi ci exemplaire original bi laa maa ngi cee ñaar mu téye xam nga kooku famille moo ko a moom muy fi mu téye léegi daal bon après ñoom kon nañ sànq mais xam naa ne moom. donc gars yi waaj defar nañ yóbbu nañ ko xam naa maanaam dépôt lañ koy def bon léegi dem na mais léegi ñun laal lu ñuy xaar mooy bon yoon daal dina def liggéeyam. ji jël nañ new suñu néew ajuma. Euh, ajuma jot nañ ko jël euh, c'est tardivement mais buñ ko jëlee ba indi ko après juma léegi samedi bi. ay deux heures buñ jullee deux heures ba pare après lañ ko yóbbu denc ko. waaw après ñëw daal def sarasi fii ñi ñëpp ñëwoon nañ fi fees lañ fi sax am na gaa nañ ñëw mais daal def nañ yëpp daal yemale yëpp ci parce que ci lay am juróom fan juróom fan boobu lañ koy denc waaw donc ci lañ ci lañ arrêté yëpp daal ne yëpp daal na na na yem toog daal xaar yoon doom a fi mm-hmm. am na doom ji moom am na peut-être suba na parce que fii nekk rue des sama kër sœur xam nga fa la ko doon dénkaane dem mm-hmm. su wàccaat jël ko après mm-hmm. dem technopole léeg-léeg mu jaar fi fu mu nekk nii daal boo ñun daal vraiment ñu ngi xaar daal yoon daal mu def liggéeyam te am nañu confiance ci ci ci justice bi deuxièmement aussi di remercier rek xanaa police bu Grand Yoff ah, bon ànd nañu ak man jour boobu depuis presque une heure du matin ba cinq heures moins maa ngi ñoom maa ñoom une heure du matin ba cinq heures moins maa ñoom une heure matin ba ay trois heures presque ci lañ doog a ñëw trois heures di denc trois heures et quelque quatre heures jàpp waa ji fekk ci la ñuy indi ak ñoom ak corps bi ñëw ba police ba ñu ñu tëjwaaj ci gri ba pare nekk di toppatoo affaire yi ak sapeur ba jël boole ma ak sapeur ñu continuer dem yóbbu corps bi ay 5 heures moins hôpital Dalal Jàmm donc xam nga vivre nañu guddi yëpp ma ak ñoom. lieutenant bi dafay bañ a cité noonu nag mais su ma nee lieutenant bi rek moom xam na waaw waaw xam na xam na xam na bu baax que mu ma waxal. bon ak euh, ñu doon entendre affaire bi bon gars yi ñoom ñëpp maa leen di remercier parce que bugguma dem euh, tudd ay tur parce que affaire justice la quoi puis dafa délicat quoi fi àdduna la xam nga da ngay wax yenn yi bon mën nañ ko gisee neneen ci waa ci ñi ngay cité mais maa ngi leen di xamal daal ñoom ñëpp daal ba ci commissaire bi ñoom ñëpp daal bon vraiment maa ngi leen di féliciter di di leen masawu quoi di leen gërëb di leen sant di wax ne seen liggéey gis nañ ko waaw ñun daal liggéey nañu ñun ñu ngi toog daal di xaar ba xam ñoom lan la ñuy wax ak yooyu mais xam naa ne daal am na ñuy wax naan avoué na ñu di wax naan ni mais je sais que ne man man personnellement ak sama xalaat bu gàtt ba ma demee toog foofu rek xam naa loo xew xam naa ne kii du du bu doon pendaison da nga ko fay fekk wala nga fekk ay fii liy lang yaa rien te foofu moom gàttaan bu mu nekk noonu ñu yow mii sax yow yaa ko sut fuuf ku jigéen ki kooku munul munul band boppam ci néeg boo xam ne dara nekk fa benn ban te ñu la sut fuuf sut ma fuuf di dem teg nañ ba taxaw essayé na ko da ngay fen donc mënul nekk quoi yu lu fi nekk donc euh, dëkk rek mooy mujj parce que problème mooy dëgg bi bon xëy na dogal la mais moom moo def lii rek xam nañ ko quoi waaw vraiment maa ngi leen di remercier tam yéen boo lii sax da ciy baax parce que lu tax ma gën a kontaan mooy xam nga information da nga dem jëli ko à la source te yéen lii xam nga loo leen teg kenn du ko teg ji mais am na ñoo xam ne dañuy wax nii rek mais yow da ngay xam ne kii bu ñëwee fii bu ñu ko waxee leneen lay teg wala dina dégg beneen leneen mu leer kon lii moo normal mu jël loolu copier ko mais li ngeen def ni nit du ko teg xam nga premier jour da ngeen ñëw fii xam nga dama leen tegal commencement ba fa ma yem xam nga kooku foo ko teg kenn du ko weddi personne nga ñëwaat tey eggali lii mooy xam nga te lii xam nga journée yaa ngi koy wax mais dellu si nga man ma tegalaat la ci lii mais vraiment maa ngi leen remercier bu baax a baax a baax a baax te xam ne seen liggéey bi yàlla na jël kanam te lii na avancement rek laa si gis. vraiment kontaan naa. doom faral di sonn di laaj ci yaay. non si parce que euh, kañ euh, ma xool avant may jot autopsie bi. Mhm. temps yëpp ah temps yi sama sœur xam nga rédis biir a fii. day jóge foofu di ñëw sama sœur fii fii sama sœur fii lay nekk mooy mooy professeur ya yaay ndaw si. Mhm. rakom am mhm. ah, muy sëy rédis fii. léegi fa la koy bàyyi dem mais keroog fii lañ toog boobu def nañ def naa autopsie ba pare ah bon waa kër sama sër boobu di woote fi mu ne leen paaseel ma ko mais ñun daf ñuy laaj ana maam ak kii mais da ngay dégg mu naan ah sama yaay wàccagul ba tey an sama yaay ku mu daay mu ne day daraaye ba sàgg ne la waaye sama yaay moom moom ba tey wàcc même major bi liggéey ak moom hôpital ba fii la toog ak ay kii mais bu mu déggee baatu major bi mu ne jox leen ma major dafa toog di ko daraaye mu ne waa major waaye yow sama yaay boobu ba tey ñëwagul de wàccagul ba tey mais ma loolu tuuti mu jooy fi xam nga loolu dafa xaw doy waar nii lu doy waar la quoi. xale bu toll noonu di wax. xale bu toll noonu ñëw ba taw naan la ana ana ana kii ana ana ana kii ana ana ana ana sama yaay sama yaay wàccagul ba tey xam nga loolu dafa doy waar. waaw man xam naa ne moom bés bu ñëwee fi su ma ko waxee man xaw ma fu ma jëm parce que jot na ma jëm rek ma dama daw bàyyi ko fa. te daf ñu ci kër yëpp ñëpp la tax. ñëpp la tax Yacine ñëpp la tax koo tourné xale bu neex laa la ay trois ans et quelques non mais su ñëwee xool su kër gi day jëmbale comme xale yi la xale la toll kee moo sut tuuti ay trois ans et kii sax moo ko mag ah mais nga. moo nag waaw dafa metti moom kañ fu mu nekk nii ñu daal ñu ngi toog daal di xaar rek waaw denc nañ ko ñaanal nañ ko ah ñu ngi toog di xaar léegi yoon lu mu def ñu xam ne noonu la quoi waaw te yoon xam naa ne xam na ne lii moom lu mu ci def yëpp xam na ko waaw xaritam yi ñu doon wax ba léegi ñoom ñëw nañ fi si wala ba léegi euh, sincèrement nag xam nga nit soo wax di waxal dëgg gi rek euh, bu affaire bi amee samedi bu bu ma demee samedi ci guddi ba découvrir affaire bi ba 5 heures matin ma dellu si dimanche bi ñëw nañ fi mais dañoo ñëw ànd ak am ñu àndal police ba la njëkk mënuñu gis nag waa ji fekk man naa sama benn rak sama benn jarbaat mooy magu xale bi jigéen bi gaañu dama koy yónnoon pour mu dem jël fa benn këyit mu woo ma téléphone na ma sa waay fii la ñu fees del kii lañ bëgg gis mais gars yi lañu wax waa ji nekku fi léegi ñu koy topp naan ko fan la koor bi nekk mu ne noo xamu fu koor bi nekk léegi ñoom kooku mu ñu bisee dañ ko topp si dañoo ñëw nekk ci angle ba dafa groupe am ñaari góor ak ñaari jigéen yi ñëw mais boobu ñoom xawuñu comprendre mais ñu ngi am doute ñooñu bu ñëwee toog fi après ci lañ dégg affaire yi nag commencé jaaxle naan lan jigéen yi quoi ñaari jigéen yi kenn ki dafa bootoon doom mais dafa làkk séeréer te am na ku toogoon ne dégg mu ne leen def ko ne jóg leen ñu dem gaaw jóg leen ñu daw boobu ñu ngi commencé dégg réalité yi quoi léegi góor ñi jénn ba fee na mu waaye woo lii de maa ngi leen ci kii kër am na benn jaam boo xam ne vraiment dafa dal ko quoi moo tax muy expliqué ma ne ko non lii ndogal la bon xaw ma lan moo xew daal ba lii am man daal mënu ma leen ci wax dara ñu ne ma ma ne leen man fekk naa yëg naa gis naa ndaw si nu mel xam naa ni kii man su ma ko jëloon sax suba naa am problème ma ne ma dem woy police ñëw nañu xool def nañ seen ko bu nañ waa ji jël koor bi yóbbu man daal ma ne leen foofu laa mën a yem waaw ñu ne ma après ci ma nijaay mi wax léegi dem bu nga dimbali ma non après dañoo dem cinq minutes moom kenn mu dellu si ne ma kon ko yaay seen nijaay te yow vraiment euh, dal nga dama bëgg ngir yàlla ak yonent bi rek lu ñu ti def bu fekkee koor bi jot nañ ko nga woo man damay ñëw ci dëj bi man ne ko amul problème kooku moom chaque jour naa déggante dina ma wax ay quatre fois daf ma yow le laaj ma dagam koor bi ñëw ma ne ko ñëwagul mu woo midi woo ma 15 heures woo ma 18 heures ba jour ma ba autopsie bi ma ko defee ba ma defee autopsie bi après laa toog benn jour waaw le mardi mercredi rek mu woo ma ne ma sawaay ma ne ko la la mu ne ma mais corps euh, bi ñëw na parce que sama benn jarbaat moo ma ne commissaire bi nee na corps bi ñëw ma xam ne lu ñuy lu ñuy wax la lu taxawul quoi hmm. gisuñu sax commissaire dañuy wax loo xam ne xam nga existé wul pour fa xam naa dafa foog ne man. peut-être dama koy nax fa te pourtant naxuma ko. bu koor bi ñëwee daf ma doon woo ni bu koor bu ñëwee man maa ko woo ko jot naa koor bi mu ne ma ne ko deux heures damay denc moom ci boppam vraiment ku ku baax la gis nga dix heures dix heures fekk na mu ñëw fii. ñëw toog nii man maa toog moom nii mu toog ci buntu kër gi mais man maa toog ba si àgg ma xalaat ma ne noo xaar ma jël ko. mooy yóbbu ko ci taatu garab bi en face kër gi xam nga yëpp a ngi toog foofu léegi ñu toogoon foofu yëpp sama am na rakk am na kii ma ne leen bu kenn wax dafa rey wala dafa lii ñii du ñoom seen problème nekku ci kenn xamul yàlla xam léegi kii bàyyi leen ko mu toog bu ko kenn wax dara waa ji ñëw na toog ay rakku gaayal bu jógee dëkk ba ñëw toog kenn wax leen dara bu ñu demee ñu dem jàkka jël julle deux heures fii lañ jullee deux heures jóge fa dem yóbbu ba denc ba pare après ndekete am na ñaari jigéen yi mu àndaloon mais dañoo toog mais ñu ngi toog à l'écart mais bu ñu demee ndeysaan ba ba pare añ ba pare toog continuer def bu ñëwee lañu añ def lu ñuy def ba pare mais yàlla dafa def après ñu ne ma dañu bëgg jaale mais man maa leen ne su fekkee da ngeen bëggoon jaale boo bëggee taxaw ci digg géewu fii ci digg fii ñëpp toog di wax ngeen bëgg wax ñi nga xam ne yeneen famille bi rek problème mun na am sama famille du doon problème mais yeneen ñii ñi lu ñuy wax du du neex te bugguma loolu quoi ma ne leen léegi xam ne lu ñuy def fi ngeen toog toog leen foofu rek ci biir ni ñi man dinaa indi ñoo xam ne day ñëw toog ñu waxtaan ngeen jaare ci laa jël imam Habib jël ay samay frère yooyu yëpp ak frère grand frère sama jarbaay bi xam ne moom mag xale boobu mooy magam ñoom ñëpp ma jël leen ñu ñëw toog ni ci sees ñu waxtaan ñu toog ñu jaale ne affaire métti na leen mais ñaari gaay mi ne ne ñoom ñoo gën a am lu leen métti dëkk ba lañ jógee parce que ndaw si bu doon ànd ak waa ji pour ñëw dëkk ba ñoom ñëpp dëkk ba dañuy kontaan parce que ndaw si day jënd lu ne ñëpp dañuy kontaan dëkk boobu. ma ne nag ñoom ñoo gën a am lu ñu ngi baalu ak affaire yi baax boobu affaire yi maa amul problème ñu yëkkati benn montant bon xam nga sonné kii rek bon am na mais amul problème quoi loolu moom mun ndaw ak kii mais amul problème mais ñëwoon bi sax am naa yëg-yëg bi ne garaawul quoi. ñëw nañ fi après waxtaan affaire ba waa ji jox ma numéro am yëpp mm. mën nañ déggal ma ne ko amul problème mm. waa ji ni yaay mu ngi Medina yeneen yaay dellu dëkk ba mm. yi ñaari famille ñu ngi fële euh, fële kër kër Massar xaw ma demee noonu la kër Massar xaw ma Parcelles kër Massar kooku ñoom tabaski korité fa la bi doon ànd ak jëkkëram di dem foofu korité waaw kooku tam boo waxtaan nañ fi yooyu ñëpp après ñi tas ñibbi ah waaw loolu la quoi ñëw nañ fi waaw loolu la kontaan naa trop kontaan naa trop kontaan naa trop. jërë ngeen jëf mbokku internetu Actubuzz Babacar gis nga li nga ne mooy moo fi amoon ci comme li nga xamante ne mooy information mais tamit di excuse wu xam nga des fois da xool yi day xaw a kii tuuti day xaw a tooy di jégal bu baax a baax rek di wax ne gis ngeen li nga xamante ne mooy waxtaan bi waxtaan am na solo lool di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ak salaam. yal na yàlla xare xale bu jigéen bi nga xamante ne moo fi jóge yàlla ko yàlla xare àjjana doom ji mu fi bàyyi yàlla teg ko loxo yàlla màggal ko comme li mu la waxoon si début bi rek di ñaan jàmm ak salaam baax a baax ci réew mi yàlla def tawféex yal na yàlla leeral lépp tamit jërë ngeen jëf mbokk